بالله السميع العليم من إبليس الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mbokki jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo ngi leen di nuyu nuyoo ba gën a sell te gën a rafet gën a matale diggante jullit ak moroomu jullitam guddi gi di مولد النبي صلى الله عليه وسلم دي لو مغ دي لو باركل دي لو ني ورمال دي لو فيس دل كي نجاري واخنا نيوكو واخاتيكو كون دينا دوي ريك غير سوغني با مو توتي لي شيخنا خادم الرسول صلى الله عليه وسلم واختي جذب القلوب لعلام الغيوب نه màggal guddi gi ci nu dëppook sunna day taxa a bi aljana day yokki xéewal day tax defu la xisaab ëllëg yowmal xiyaam day tax nga am daraja ju mel ne ku faatu ca xare badar mu ne boo ci defee sa alal doonte benn dërëm la dinga mel ne ku teewe woon xareb badar ak xareb xuneyn mu ne ku ko màggal ci di bégale ci joxe aw ñam sunu borom dina la bégal ta do dajé ak lor yowmal qiyam sëriñ bi sant nanu nu wormal guddi gi te màggal ko moy limu wax fahtariman wa azimi ci baytu faman man yuazim mawlida nabiyina babil huda فلا يحاسب غدا faxtarimaw wa kon nun dano am ndigalal warmal guddigi ta magal ko buñu ci def yenn caaxaan nanu ci fanane salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ak tag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci qasaidi al khadim yi ak jàng alquranul karim nañu ci moyto def dara luy neenal wala muy gàkkal sunu liggéeyal ko mom sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi nit ñi réer nañ lool xamuñu fu ñuy teg seen tànk ñi bëgg lu baax jaaxle nañ lool te tiit ci fi mbir yi jëm jafe-jafe yi am ci jamono ji yépp da ngay gis ne xër ci àdduna ak alali àdduna ak dara ji àdduna moo ko sabab nag lu yàq ñoo ko yàq lu doxut ñoo ko taxawal bu ngeen seetloo da ngeen gis ne am na ñu bëgg lool bay xañ seeni moroom seen àdduna am na ñu bëgg daraja lool bay nangu cëri jambur di toroxal seeni nawle am na ñu bëgg alal lool bay bóof ci moomeelu jambur ak di rotali bakkan mbokk nit ñi alal jaral na leen lu ne loo jàpp ne nit ki war def wala mu war koo jommale boppam walla mu war caa seet yàlla ñi ngi koy def ngir lu ñu ci amee cis alal koo ci jox alal mu defal la sag bëgg ba tax na jàpp nañ ne alal mooy caabi bunt yépp boo ko amee mu xàllal la yoon yépp yaay faju sa njabootay jàng ñooy faju koo joteel yaay am dëgg yow lañuy ñuy jiital boo xameek boo xamul moo taxit ñépp a ngi ci rey seen bopp ngir bari le ko seen yoon nekkul ci amin wi tax na ba tey kenn tànnatut métier ngir passion maanaam ngir bëgg goo bëgg métier ma waaye ngir am koom ba tax na ku ko ku ko ca fekk moom ma tànn métier moomee jox ko alal defloo ko ca sofaan mu def ko ndax bu fekkoon dafa bëgg métier ma du nangu dara lu koy gàkkal boo seetloo loolu sax dafa mel ne dafa law ba ci xale yi ndax léegi élèves yu bari dañuy am jafe-jafe tànn lu ñu war a def bu ñu amee seen baccalauréat nga xam ne dañuy lijjanti ban domaine moo ëpp débouché waaye du ñu aj duñu ko aj ci jàng loo xam ne dañu ko yàgg bëgg def ko seen ambition maanaam seen mébét moo tax jëngatuñ ngir xam-xam waaye ngir alal moo taxit ku ci as alal kar nga dagg sam njàng xerum nit ñi ci alal foo ko natt wees na ko moom lañuy jiital ci lépp tax na ñu ñàkk ñi di gëna sonn bay nangu ñu leen di def loolu jaaduwul ngir lu ñu cay mose ci alal tax na as gor mujj di ko ñàkk fayda di def yu ñàkk solo ci ginnaaw borom alal tax na kilifa wàccu àndam di def luñ ko foogewut di génne fuñ ko xaarewut tax na ay bokk di noonu ay xarit di dogoo ab ànd di teqalikoo tax na koo jiital mu war la koo dénk mu ayibal tax na koy defloo dara mu di ca seenu dara donte sa xàq la ci mu defal la ko sax lu mel ni ci barabu liggéeyukaay yi dafa am benn boroom xam-xam di journaliste américain di écrivain maanaam di bindkatu téere diko ko xereñ ci càmbar ak settantal politique Amérique ak Moyen-Orient Madame di analyste de la politique américaine et du Moyen-Orient ñu diko wax Chris Hedges Chris moomu dafa wax né we now live in a nation where doctors destroy health lawyers destroy justice universities destroy knowledge governments destroy freedom The press destroys information, religion destroys morals, and our banks destroy the economy mu ne dañuy dund ci réew moo xam ne ñi yëngu ci wàllum paj ñi ngi yàq wér-gu-yaramu nit ñi ñiy yëngu ci wàllum àtte ñi ngi yàq atte ci yoonu dëgg université yi maanaam daara yu kawe yi ñi ngi yàq xam-xam gouvernement yi maanaam nguur yi ñi ngi yàq liberté ñi yëngu ci wàllum tas xibaar ñi ngi yàq xibaar yi diine mi ngi yàq jikko yi banque yi ñi ngi yàq koom-koom mi ci sunu déggin domaine yooyu mu wax yépp nag benn bu ci nekk dafa am ay charte ak i doxalin yu war ca liggéey ba nga xam ne ku ko respecté rek dara du yàq moom lañuy ñuy woowee déontologie professionnelle ñu dégg ci kon ne ñenn ci ñi ŋànk liggéey yooyu ñoo dëppoo wut ak la war ca liggéey ba ci sababu bëgg àdduna ak daraje àdduna ak alali àdduna nit ñi warmaalatuñ doomu aadama warmaalatuñ ay xàqam bopp sa bopp la dund léegi kenn faalewut moroomam bu dee xiif bu dee mar bu dee dee duñu ko yëgal sax seen yaram ak nite ci boppam moo jeex ci nit ñi moo tax lu ne atan nañ ko def ngir seen aajo yi bopp rek faju duñ xool sax ñi ci des seetuñu li yàlla bëgg ak li mu bañ xalaatuñ dee xalaatuñ bàmmeel xalaatuñ yawmal qiyaam xalaatuñ sawara xalaatuñ gàttaayu àdduna moo ne de yu mat a bàyyi xel ngi noonu ci lépp lu ñuy def ak lu ñuy wax ak fu ñu mën a nekk ak ku ñu mën a nekkal mbokk yi àdduna lu gàtt la motax kep ko lu bax ñor jaaxle nga ci jamono ji bokk julli yi nañu xamne aduna du kër guy sax te jeex na ba noppi hadhihi alhayatu ad dunya mata'un wa inna al axirata hiya darul qarar kon dar jëru fi yenn yi kep ku bëgg a dund bànneexub àdduna di yaakaar bu alaxira yaa ngi nax sa bop aduna su neex ak alaxira bu neex du daje ci kenn صلى الله عليه وسلم أقوخ حلوة الدنيا مرة الآخرة ومرة الدنيا حلوة الآخرة بنيخو أدنى موي نقروا الآخرة نقروا أدنى نك موي بنيخو الآخرة دانو ساك تي دغ مانام دافا ام جوبلو تي لم نو ساك تا موي نو جامو كو ريك وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون كون لوم ديف تي نون بامو ماي نوكو تي خيوال غير نو جامو كو كولا موي سونو كاتان di sunu xel di sunu xam-xam di sunu wërseuk di sunu dundu gi yi yépp nak ndenkan rek la te ëlëk yowmal qiyam faaw mu ciambar lenn lu ne ci yoyu ndax li tax mu joxoon la ko def nga ko ca sallallahu alayhi wasallam ko wax la tazulu qadama abdin yawmal qiyamati xata yusala an umrihi fi ma afnaahu wa an ilmihi fi faala وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه نينا بو يوم القيامة جام بونه ديف نكو لاج دوندم جي تي لان لاكو سانك خام خامم بي تي لان لاكو ديف علالم جي نومكو امي اك تي لان لاكو ديبونسي جيمم جي تي لان لاكو ماغاتالي كون بوكي جولي دي بوكي تالبي نانو نيك تي لي ني في اندي تا باي جاخاني ku nekk ci li ko neex jàpp ne du mujj fenn mi ngi nax boppam te bu ab àppam accès dina ko rëccu te kenn du ko may beneen occasion bu mu dabaatale li ko rëcc ida jaa ajaluhum la yastaaxiruuna saatan wala yastaqdimuun fala taxurannakum alxayaatu dunia wala yaxurannakum billahi alxarur kon bu leen àdduna wor akub taaram ak i bànneexam nanu jaamu yàlla jéem a sax ci lim ñu digal di moytu lim nu tere suñ kemt lay kattan ku ko ci defut koo mën a doon ak daraja joo mën am bés dina ñëw dinga ko rëcc lool te kala ci dugaloon ngay gën a bañ te ñu gëm yàlla te doyloo ko ñu nangub dogalam te gërëm lim ñu séddee tey bañ a jàmbat yàlla noppi na ci wërsëg yi kenn mënta am lu ko yàlla séddewul ak pexe yu mën a tëral nag kenn nit mënulaa xañ lu yàlla bind ne di nga ci jot ak nu dooley kaw kooka mën a toll mënu cee fanq lu toll ni fepp suuf wa ma min dabbatin fi l ardi illa ala allahi risquha wa yaalamu mustaqarraha wa mustawdaaha kullun fi kitaabin mubin luy dox ci kaw suuf rek yàlla nee na moo ko warlul wërsëgam te yàlla lu ko war dina ko def kon lu fi jar xiiroo bi ak ŋaayo bi ci alali àdduna lu fi jar noonoo gi ak lorante gi ci alalu àdduna lu fi jar defal noonu lislaam bi ak bëggam ci alalu àdduna fi jar tuur deret ak bakkan ci alalu àdduna dara dara dara jëru ko fi àdduna ak li ci biiram jërut xuri doomu aadama boo dëkkee woon jaamu yàlla doo dugg mukk aljana dafa yow xàq joo amee sa moroomum jaam nañu bàyyi yàlla li ko war nañu bàyyee yàlla li ko war muy sunu wërsëg yi te nekk ci li ñu war muy jaamu ko ndax kenn duñu ko defal yow liggéeykat bi ak liggéey bu mu mën a doon na nga seet yàlla ci sab liggéey bu la alali àdduna taxa wuruc bu mu la taxa defub safaan bu mu la taxa wax lu du dëgg ku la ko mën a defloo di nga ko rëccu fu mu dut fekkee dinañ la dumaa fu mu ko dut yëgee muy sa bàmmeel kon bu la alali àdduna jaral ngay luubal bu mu la jaral wor bum la jaral lor kenn jubalal maandul yamaleel te aar liñ la dénk ñi la jiital buñ la gën a gore jiital gi rekk doy nam koom jiital gi rekk doy na sag kon doylul te sagal leen ci bëti ñeneen ñi bokk yi dara àdduna wéyut ak lu mu neex neex kon nañu njëkkante ci ngëneeli àllaaxira yi ndax àllaaxira mooy këru dëgg gi tey sax ba faw والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته